asalaamualeykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sports 221 dañu koy doore ak Sadio Mané beneen yoon gannaaw boo xamante ni kat kii di Dani Alves daf koo dal di félicité ci Ballon d'Or bi nga xam ne gagné na ko niki barki démb coow li jeexagul ki nga xamante ni mooy pële li moo waxoon mooy wéy ba léegi Sadio Mané dafa nekk ci xolu àdduna yépp Dani Alves bii di ancien joueur Barcelone nekk international brésilien boo dal di félicité Sadio Mané dal di bind benn bataaxal jagleel ko ko ci page Instagram am dal koy tagg-tagg am solo daala nee na ki nga xamante ne mooy Sadio Mané daal mu ngi koy félicité en tant que frère moom kii di Dani Alves nee na Sadio Mané de yow joueur nga boo xamante ni maanaam euh, ku ñu war a roy nga voilà ku ñu war a roy nga te dañ laa soxla ñi mel ni yow dañ laa soxla ci li nga xamante ne mooy suñu live bi moom kii moo ko dal di xamle mu ne respect rek loo xamante ni maanaam wàllu football la waaye lu ñuy dond la moom kii di Alves dal dinay gaaral kàddu yooyu la en rafet la yoo xamante ni dal na koy dal dinay koy taggee ki nga xamante ne mooy Sadio Mané xamal ko ne carrément joueur la boo xamante ni daal maanaam euh, dañoo war a roy ci moom ku ñu war roy ci moom soxla te ñu mel ni moom dañ leen a soxla ci li nga xamante ne mooy live bi moom kii di Alves moo gaaral kàddu yooyu la Sadio Mané moomu ci la ñuy des ki nga xamante ne mooy entraîneur bi koy tàggat di Julian Nagelsmann foofu la ca Bayern na dal dinay gaaral ay kàddu ci ne Sadio Mané du mën a dellusiwaat foofu lay bokk ci match bi nga xam ne waroon nañ ko jouer seen digganteeg ñi di waa Manchester City Man ak Bayern na dañu war a jouer tey ji ci guddi muy ñaar li nga xamante mooy préparation yi waaye nag ki nga xamante ne mooy Nagelsmann dal dalay leeral ci ne Sadio Mané du ca mën a teew ndax kat tukki mu sori mi nga xam ne ci la Sadio Mané kay di xibaar yi biral nañu ne fii mu ne nii mu ngi fële ci Allemagne di fa amal li nga xamante mooy tàggatu fa lay li nga xamante mooy entraînement yi Nagelsmann dal yu tar yoo xamante ne ñoom ñu ngi ko def ci bés yi ñu weesu moo tax ba Sadio Mané ak dellu siwaatam foofu la ci Amérique du yomb maanaam seen plan yëpp nag moo doon mu dem dellu dal dellu siwaat waaye daal loolu dem nañ ba gis ne daal meekul sens voilà maanaam daal fi mu ne nii nga xamante ni mooy ca Amérique ndax kat li tàggatu yi dafa métti te tukki mi dafa sori moo tax nee na daal day continuer li nga xamante ne mooy entraînement yi foofu la ci Allemagne loolu la ki nga xamante mooy Nagelsmann daal di xamle kon Sadio Mané du bokk ci match boobu nga xam ne ñoo ngi koy xaar muy match bu rëy war a dox diggante Bayern ak Man City te mu ñeel pré-saison yi tey jii ci guddi bu 23 heures jotee lay doon ki nga xamante ni nag mooy Ismaïla Sarr moom dafa daal di am blessure gaañu gaañu la am ci zone am de maanaam ci wóom bi la am gaañu gaañu te saison bi sax tàmbaleegul de voilà kon moom sa kii di Ismaïla Sarr amaana ak euh, bokkam ci équipe bi di Watford ngir door saison bi sax wóoragul xamaguñu ndax blessure bi grave na wala gravul ak lu mën a xew daal du bokk ci match boo xam ne ñoom tey ji war nañu ko am ñoom waa Watford te mu ñeel lii di pré-saison yi léegi nag ñuy xaar ba xam ndax dana bokk ci match boobu nga xam ne ñoom war nañu ko ubbee saison yi fileeg juróom-ñeent fan ci kanam tam war a dox seen digganteeg ñi nga xamante ñu di Sheffield United bu Iliman Ndiaye ndax ismaël Sarr dana ci bokk am du ci bokk lool moy li nga xam ne waye waaye li nga xamanteni mo moo mat nga xam war nañ ko joué te mu ñeel prestation mom ki di ismaël Sarr dana ko wuté ndax gañu gañu bobu nga xam ne am na ko di Bamba Dieng ki di xibaar yi biral nañu ne fi mu ne kat mom ñi di marché ñu ngi pousse ngir jaay ko gannaaw bo xamanteni amna club yu kay top ci Allemagne ak sax fele nga xam ne ci Angleterre ki di xibaar bi na Bamba Dieng nag yene mo doon dess ci club bobu di Olympique de Marseille yéen ngi fatale ko ne Sampaoli nek ancien entraîneur bu Marseille waxoon na fi ne Bamba Dieng bu continuer ak club maanaam dina nekk lu am solo ci moom waaye ñu fàttali leen ne kat Sampaoli boobu lee doon ko tàggat moom nekkatu fa dafa bàyyi keneen a fa ne voilà léegi nag Marseille ñoom jël nañu décision ne dañ koy jaay te loolu ki nga xamante ñoo di entourage u Bamba Dieng xam nañu ko waaye Bamba Dieng nag bu mu yéeneem moo doon continuer des ci club boobu di Olympique de Marseille ñu xaar ba xam fa mbir yi mujj ndax dina fa des ndax bu fa desee dina football wala dem mooy li gën moom loolu yëpp dinañ ci xam dara fan yi di ñëw ndax li des ci marché bi xam naa ne fi mu ne nii lool voilà kon Bamba Dieng club bu mel ni Fribourg déggoon ngeen ko ay fan ginnaaw ñu defoon benn offre déggoon ngeen tam club bu mel ni Newcastle United bi marché bi di soogu ubbi ñuy wane ne bëgg nañu ko voilà ñu xaar ba xam fan la mbiri di mujj Paris saint ñoom dañu doon joué seen digganteeg benn club bu ñuy wax Orawa nekk fële ca Japon voilà ñoom nag gannaaw boo xamante ñu ngi foofu la di amal seen pré tey ji dañoo amaat victoire ñetti bal ci dara ñoom Paris manam deuxième mi-temps bi la joué ñu gis na match bo xamanteni ñom Paris Saint-Germain clean sheet lañu am encaissé wuñu ben bal lool nak am solo lool Abdou Diallo titulaire ñu am clean sheet nek na lo xamne xeyna euh, dina am solo lool ci mom mom ki di Abdou Diallo mi nga xamne ñu ngi lam lamé ak départam fofu la ci Paris Saint-Germain 3-0 lañu door ki di Mbappé ak ki di Pablo Sarabia yëpp bokku nañ ci ñi nga xamne duggal ay bal Sarabia bi nga xamne ne ni ki daaw dañ ko able won fele ci Portugal tay ji jouer na tey it marqué na ben bal ci match boobule ki nga xamante ne mooy Jules Koundé moom nag dégg nga maam coowam li war a dox digganteem ak Barcelone wala Chelsea football club fi mu ne nii dafa gën a jëm kaw gannaaw boo xamante ne am na yenn kayiti xibaar yu doon biral ne Barça démb nelawuñu guddi gi yëpp ñu ngi liggéey ci fexe complété transfert kii di Jules Koundé ba ñu doon wax ne sax am na déggoo digganteem ak Séville waaye bi ñu sukkandekoo ci kii di Fabrizio Romano nekk journaliste Sky Sport moom nag dafa dal di xamle ne kii di Jules Chelsea sax la gën a jege ndax kat fi mu ne nii Barcelone maanaam jotuñu offre bi nga xam ne def nañu ko jotul bi nga xam ne Chelsea def na ko moo tax fi mu ne nii maanaam foofu ñu xaar ba xam décision bi lan lay doon ci côté Séville voilà ñoom daal ñoo yor fi ne nii seen jégal guy ñoo xool ba xam ana lan la ñuy def ndax dañuy dem fekk ji Barcelone ndax bëgg-bëggu ki nga xamante ne mooy jur Koundé wala dañuy jël euh, euh, dañuy dem def business ak ñii di Chelsea ndax ñoo def offre bi gën a baax loolu yëpp dinañ ci xam dara donte ne am na kayit xibaar yu xëyoon di wax ne ki nga xamante ne mooy Koundé dina dem fële ca Barça ndax accord am na seen diggante loolu Fabrizio Romano indiwul ci ay leeral li mu xam ne daal mooy fi mu ne nii maanaam mbir mi mu ngi ci loxoy amagul kenn koo xam ne fi mu ne nii jox na ko li nga xamante ni mooy signal ngir kii di dégg nga maam Koundé daal di fay dem ñu xaar ba xam ci waxtu yi di ñëw fan la mbir moomu di mujj ki nga xamante ni nag moom lañ wax Bukayo Saka nekk joueur Arsenal moom kay di xibaar dañoo biral ci ne jamono bi Manchester City gannaaw boo xam ne ñu ngi ko doon topp topp ko métti voilà bëgg koo signé Arsenal dañoo dal di teg benn deal bu bees dañu ko yokkal li nga xamante ne mooy contrat bi yokk ko xaalisam doublé li nga xamante ne mooy salaire am loolu la kay di xibaar bi biral su ko defee moom day daal di yokk li nga xamante ne mooy contrat bi moom Bukayo Saka toll ci vingt ans nga xam ne njëgam si euh, bu ñu ko doon xayma dina toll ci soixante cinq millions d' euros waaye ñii di Arsenal pare wu taxale ko ak moom moo tax ñoom dañuy yokk li nga xamante ne mooy salaire am maanaam li muy fayeku ñu duble ko def ko ñaar su ko defee mu dal di des ci club boobu loolu la kay di xibaar bi dal di biral li nga xamante ne nag mooy mat yi nga xam ne war nañu koo am ci guddik tey bokk na ci comme ni leen ko waxee ñii di euh, Bayern war a jouer seen digganteeg ñi nga xamante ñoo di Manchester City bu 23h jotee El Clasico bi war a dox diggante Real Madrid ak Barcelone war a nekk 3h du matin maanaam fajar wala boo xaaja guddi ñetti waxtu ci guddi lay doon waaye nag Porto tam war nañu jouer ci ngoonu tey yi seen digganteeg Monaco Porto bu la euh, Mamadou Loum Ndiaye ak Monaco bu Krépin Diatta boobu 19 wax jotee lay doon loolu bokk na ci match yi nga xam ne war nañoo am tey jii ñu fàttale match yu bëree bëri nag ñoo am ndax pré-saison yi yi dañu bëri lool waaye yii bokk na ci match yi nga xamante ni dégg nga war nañu koo amal ci ki nga xamante ni nag mooy Gerard Piqué moom kayiti xibaar yi dañoo biral ci ne moom fi mu ne nii kat match mi nga xam ne ñii di Barcelone war nañu ko joué seen digganteek Real Madrid ci guddi tey gi wóorul ndax dana ci bokk moom Gerard Piqué dafa am blessure boo xamante ni xëy na moo koy gàllankoor ba du mën a bokk ci match boobule voilà moom ki nga xamante ne mooy Gerard Piqué bi nga xam ne voilà mën nañu wax ne patron la ci défense wu xibaar bi la leen clash classico bi nga xamne ne amical la dina ko wuté ndax blessure bo xamne amna ko worul ndax dana ci bokku dal ndax gañu gañu bobu nga xamne ne nga mo ngi ko amé ci jamono bii loola Firouza di won ci tankum xibaar kep ko xamne ne nga ci page bi ñu lay wax nga faat euh, nga abonné su ko day waral lepp li mu fi duggal di nga bokk ci ñi koy njëkk jot continuer leen di suivre sport Sport ans the best sport news channel